seen xuloo bi xuloo bu yàgg la ndax nag ñaari kuréel yi nga xamante ne kenn ko boot commerçant yi baykat yi sàmmkat yi ak industriel yi jubóowuñu ba léegi te sax kii di Serigne Mboup di njiitug Union nationale des chambres de commerce et d'industrie et d'agriculture du Sénégal mu ngi tuumal président de commerce bu Ndakaaru ab yorin bu bon waaye itam manque de vision on demande à chambre de Dakar de partager li ñuy wax chambre de commerce bu Ndakaaru mu di ñu daal di séddale koppar gi ndaw ñi liggéey boo jëlee exemple Burkina Faso seen chambre de commerce am na lu toll ci milliard ak ñaar te loole li ko ko may mu di investissement bi muy def. il réinvestit c'est comme une entreprise. kii di Moustapha Yaya Wane nag moom mu jàpp ne chambre de commerce dafa waroon na jouer ab rôle bu am solo ci xeexuk ñàkk kupp xëy mi fii ci doom Sénégal mënoon na joxe ay solution di créer ay emploi ngir ndaw ñi. am nañu juróom ñeenti euh, section am nañu sous section ci wàllu mbay mi ci wàllu njaay mi ci wàllu càmm gi itam am nañu sax ay commerçant yoo xamante ne day fay koppar yu bëri ci li jëm ci wàllu patente dëgg bi mooy nguur gi warul woon am ay jafe-jafe ci jëm ci wàllu comme xëyum ndaw ñi. Serigne Mboup nag ak njiitu chambre de commerce bu Ndakaaru yoon attewoon na leen ba noppi cour d'appel jëloon na ceeb ndogal mu doonoon sax ndogal boo xam ne cour suprême daal na koy dëggal. ñu bëgg président jàppale ñu defar saa yi def ci délégation spéciale ba 2024 weesu ñu dem élection yi leer fal ki ñuy fal. Union nationale des chambres de commerce d'agriculture et d'industrie du Sénégal mono ji moom nee na li mu bëgg daal mu di ñu amal ab ab bu jaar yoon ngir fal njiitu chambre bu commerce bu ndakaaru lu ko mooy ñi sàkku ci kilifa yi ñu daal di rek def institution bile sous délégation spéciale ba keroog ñi def élection.